bon li nekkoon suñu ñaxtu nag mooy c'est-à-dire que ñun dañoo nekk population yoo xamante ne ñu ngi ci wetu AIBD AIBD boo ko déggee c'est l'aéroport actuellement international Blaise Diagne bu Sénégal ñëpp xam nañ ne dañ ko defar ay milliards milliards ñoo ko defar te ñun ñu nekk population yoo xamante ne on a tout donné jox nañ lépp lu ñu amoon jox ko AIBD pour ñu taxawal lu toll noonu muy aéroport boobu maa joxe nañ suñu suuf joxe nañ suñu doole joxe nañ suñu lépp Nous ñu à côté à quelques mètres de te actuellement tay amuñu ndox déjà te aéroport ba ñu ngi ndox ba ndox bay arroser ay fleurs premièrement deuxièmement amuñu ay yoon yu parce que ñun fi ñu ngi entre Pout ak AIBD bo joggé Pout à ñu ci jaar ba di dem AIBD aussi donc ça c'est quelque chose que nous déplorons. dañ vraiment mu nek lu metti trop trop trop wax deug ci ñu ngi ñaan les autorités en l'occurrence le président de la république parce que problème de sécurité publique dafa posé fofu parce que population bu amul ndox bu mun naan nekk si aéroport te tuyaux jaar suñu biir deuk di dem aéroport donc la problème sécurité posé na fofu parce que si nañ xey un beau jour population est tej train bi aéroport bi ñak ndox donc là c'est pourquoi nous ñu interpellé monsieur le son excellence le président de la république avec ses ministres avec toutes les autorités locales aussi ñu jóg ci problème bobu ñu rek la ko waaw problème gox bobu nak euh, su may wax problème gox boobu d'une manière générale euh, problème de la c'est les villages de Touli village Landou Landu ak village de Soun. ñi may ñi xam aéroport xam nañ village de Soun, mo nek ci rond-point aéroport bi village de Landu aussi mu village de Tuuli boo xoolee c'est des villages yoo xam vraiment sonn nañ trop trop trop trop ba tey tey li mu lay wax ak yow nii mun nga dem vérifier sur place ndox bi ñu naan dañ koy dem dañuy dem jënd chaque jour ndox ay euh, barigo ndox 1000 francs population yoo xam ne bu ñu xëyee pour ñu ndékki sax problème la donc c'est des populations yoo xamante vraiment c'est des villageois il y a la pauvreté amuñu ndox bu ñu di dund situation yu métti amuñu yoon yu ñu jaar jigéen buy matu sax da ngay am problème parce que amuñu euh, euh, case de santé yu baax amuñu poste de santé déjà amu fa. donc ça dit que souffrance bobu ñu nekké té AIBD nekk sen sen côté té ñuy contribuer ci développement au Sénégal souffrance bobu lañ né vraiment kuñ ci jappal ñu jël.